إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بك جلدي نيغي سانت سوني بروم نيغي سيدنا يالا دون مو ييو ñukay jaamu moo yeyoo ñu koy gëm di ko yaakaar di sukkandiku ci moom yeneenti yàlla muhammad la yónni woon ci ñun mu ñuy jàngal naka la ñuy jaamoo seen boroom ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ca mooy topp ko ca toppe ko naka yoo ab yeneentam jàngale xam leen ni la gën ci aw doxalin mooy aw doxalinam bokk na li gën a yées mooy doomu aadama bi sos ci diine yàlla ji loo xam ni jëlewu ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi ngi nii di dund tey ci fukki guddi yi nga xam ne fukki fan yi nga xam ni moo gën ci at bi yépp yàlla dogal na am na ñaar yu ca jàll ñi ngi dund ñetteelu fan bi tey mu des kon la ëpp waaye it mu desit la nga xamee ni nii mooy bis bu màgg di bisu arafa xutba bi paase fii dégg ngeen ci fukki guddi yi wala fukki fan yi amul benn nit boo xam ne mën ngaa def benn tuyaaba yàlla gërëm ko ni muy gërëme tuyaaba ja nga def ci fukki fan yi ñuy dund jëf bi gën a néewu bu ñuy tudde tuyaaba moo gën a màgg jëf ba gën a màgg bu ñuy tudde tuyaaba ci beneen bis yonent bi bi mu waxee loolu saxaaba yi nee nañ ko ah waaw yu mu yàlla yónni ndax benn xasana bu ndaw boo def ci bis yi moo gën a màgg sax jihaad fi sabilillah mu ne moo gën a màgg sax jihaad fi sabilillah benn subhanallah benn allahu akbar sarxe ñaari dërëm julli ñaari rakka lum mën a doon ci lu baax ak lum néew néew yonent bi aleen salaatu wasalaam nee na moo gën a màgg sax jihaad fi sabilillah mu ne xanaa ki nga xam ne daal kenn mënu koo dab mooy ki génn ak alalam ak bakkanam ba mu demee jihaat alal ja des fa bakkan ba des fa loolee mbokk kon ñi ngi ci jamono yi bonis boo xam ne wallahi kenn mënu koo méngale ak li ngeen miin waaye nag ngir ngeen mën a dégg rek ca mooy góorgóorlu ci lu ñu mën a def ci lu baax ci fukki fan yi waaye rawatina nag mbokk julit mu des nag la nga xam ni leer la ci biir leer muy yow mu arafa su màgg boobee nga xam ne suñu borom yàlla màggal na ko def ko mooy ponk bi gën a rëy ci aj makka aj makka ku demul arafa sa aj baaxul mënoo ko dabantal muy bisu njëggal ba ak bisu goreel ba suñu borom yàlla tànnoon ko wàcce ci aaya bu màgg boo xam ne omar ibnul xataab radiallahu anhu benn yahud daje na ak moom ne ko ay amirul mu'minin yéen de yéen a nga jàng seen téere bu doon te ne ci ñun la wàcc dañ koy def bisu iid ba ilaa yawmi diin omar na ko aaya boobu ban la mu ne ko mooy fii yàlla di wax ne bis ne ki tey matal naa seen diine ji mottali seen xéewal gërëm ngeen jaamoo ma nii omar na ko xam naa kañ la wàcc ay mi ngi wàccoon ci bisu arafa mu tombeeg bisu aljuma ñun bisu arafa bisu feet la bisu aljuma bisu feet la kon mooy loola yëhru ba daan wax naan bu doon ñun ñu def ko feet ñun yàlla dañu koo far defal feet ci biir biir feet loolu it mbokk mu ñuy jàngal lu nekkul woon diine keroog ba yonent bi di def déclaration boobu dootul nekk diine ba ilaa yawmi diin mbokk bisu arafa mi ngi nii di ñëw muy nekk bis boo xam ne dañ cee war a góorgóorlu rawatina di baril ay ñaan mbokk alxamis jii di ñëw mooy arafa ñu baril di ñaan bisi ngëneel ak place yi ngëneel yàlla dana ci nangul jullit ñaan goo xam ne bu ko ko ñaanoon feneen du ko ko nangul waaye màggaayu place ba makka ak madina ak yu demee noonu wala màggaayu jamono ja bisu àjjuma ak bisu arafa ak yu demee noonu yàlla nangul la ca say ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xam leen ni bis bi gën mooy bisu arafa ñaan gi gën mooy ñaan gi nga ñaan bisu arafa li gën ci li may wax maag yonent yépp mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir te mooy mbokk mooy zikr bu màgg boobu nga xam ne yonent bi nee na mooy li gën li may wax mag mboolem yonent yi jiitu te mooy kaddu laa ilaha illa allah boo ko settantalee da ngay jàpp ne lii day ak ñaan amu ci ndax danga naan kenn yeyewul ñu koy jaamu ko dul yàlla moom dong amul benn bokkaale mboole mi nguur moo ko moom mboole mi cant moo ko moom mooy ki am kattan ci lépp mbokk loolu mooy kaddu googee da ngay jàpp ne du ñaan waaye yonent bi nee na moo gën ci ñaan yi bala nga koo xam tey jii da ngay gis waa ji nga xam ne daa xewle lii aaday Sénégal ñu naan ay géwalu juddoom su ñëwee du ñëw du ko ñaan waaye day ñëw rek di ko tagg tagg ay maamam tagg ay ak mbaaxam tagg lu baax li ngay xam ne moom lay def mbokk loolu lam koy may du ko yemeleeg ka ko topp naan ko may ma may ma kon it suñu borom yàlla bokk na na gën a màgg nuñ koy ñaane moo ñu saxal tawxiid wéetal ko ci ne yàlla yow dong yaay yàlla mi yow ñu jaamu ko saxal ne mboole mu nguur moo ko moom commencé ci jibril muhammad nabiyun asamaan ak suuf lépp moomeel gu yàlla la saxal ko ne mbooli mi xéewal gu nekk ci jaam bu mu mën a doon yàlla yaa ko ca def mooy lahul hamd gannaaw bi nga saxal ne mooy borom kattan gi nga xam ne dërëtewu ko jalla wa ala huwa ala kulli shay'in qadir lii mooy ñaan gi gën su ko defee bisu arafa loo man ci ñaan ci yiwu àdduna yiwu allaaxira ngalla way baril ko waaye nag rawatina baril kaddu googee nga xam ne sunnal nañu heure boo jullee ba pare nga def subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett allahu akbar fanweeri yoon ak ñett nga tëjee ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir usaami ibnu zayd radiallahu anhu nee na ànd naag yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bisu arafa ba nga xamee ni nii julli na tisbaar ma nga taxaw di ñaan di ñaan di ñaan ba jant ba so nee na la nga xamee ni nii mooy ngalaab gi mu téye woon giléemam nee na même bu woddee dana ko jël ak loxo càmmooñam waaye teewul ndax ndeyjoor baa nga yëkkati ko di ñaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soo demoon Arafat ca nga xamee ni nii dañ la woon ne fii la taxawoon di ñaan sallallahu alayhi wa sallam ba ba jant bi di so loolu nga la way bàyyi leen ko xel alxames gii di ñëw ci jéem a wéet ak seen boroom jéem a baril ay ñaan e yow mi nga xam ne nii dangaa demoon ca jàkk di julli cay boo jëfe woon sunna boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne ma demoon ca jàkk toog ca jàkk de day gannaaw julli tàkkusaan di tudd yàlla ba timis jot moo ma gënaloon ma goreel ñeenti ca ña nga xam ne ñooy la nga xamee ne ni mooy doomi ismail alayhi salaatu wassalaam loolu mi ngi noonu baril ay ñaan ñeel ñu waaye baril ñaan ñeel ña jiitu ca biir suuf te mënatuñoo ñaan baril ñaan ñeel suñuy mbokk julit ñaanal sa mbokk julit day dellu si wat ci yow lii mbokk ma yow mu arafa suñu borom yàlla def ko muy ayit boo xamee ni nii day ëmb mboolem njëggal waa arafa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dana ñëw tiim waa arafa woo malaaka yi asamaan yi na leen xool leen sama jaam yi fu ne ñu ngi fa jóge daje ngir yaakaar sama njëggal ak sama yërmaande maa ngi leen di seedal ne jéggal naa leen yërëm naa leen te danaa leen gàddulu seeni tooñ yañ doon tooñante seen biir wa dammana anhumu tabaat Omar ibn Khattab jóg na ko ay mi yàlla yónni ba ko yonent bi waxee ci Arafat bu njëkk ba ndax loolu ñun la ñeel wala ñuy ñëw suñu gannaaw mu ne ko déedéet Omar yéen la ñeel ak ñuy ñëw seen gannaaw ba ila yumi diin looloo tax mbokk ngir bokk ci njéggal googu ak yërmaande googu ñii nga xam ne ñooy waa Arafat ñoom duñu wóor bisu Arafa waaye jullit ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci bis boobu ci njëg ci koor googu ak la nga xamee ni nii mooy ñaan yooyu suñu borom yàlla dana leen ci ëmbaale mbokk ren ñi ngi dund loo xam ne jàpp naa ni ah bu ma see amit xawma ko ci histoire ñi ngi nar a aj aj makka goo xam ne keneen ku dul waa Arabie Saoudite du ko fekkee loolee mbokk lu yéeme la bal waa Arabie Saoudite dañ ni mille personnes dong lañ ca tànn ñoo xam ne ñoo nar a aj ren ci jamono boo xam ne trois millions de personnes daanañ ko aj lan moo ko waral mooy natt bi yàlla wàcc ci kaw suuf ba tax tey ñu teqalee suñuy sàppi ni ba tax tey li ëpp lu daan dugg ci jàkk ji ña nga tey ca mbedd ma loolee mbokk ab natt la boo xam ne mi ngi jógee ci bawoo ci borom bi jalla wa ala ñi ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla teggi ci jàmm ak yërmaande balaa ñooy yàlla di dajalawaat ak beneen acc boolem ñi nga xam ne dañ caa faatu ci jullit yàlla na yàlla boole leen mina shuhada dafa leen àjjana muy seen wàccuwaay ñu ca feebar yàlla yëkkati leen ñoom ko dalagul ci jullit ñi ñaala féewale leen ko ay yéen mbokk jullit bi su arafaat mi ngi nii di ñëw di alxames yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam daana ñaax sahaaba yi ne wóor leen ko sahaaba yi ne ko waaw bën ngënil moo ci nekk mu ne maa ngi jàpp ci yàlla ne at mi nga xam ne nii moom ngay génn ca at mi léegi mu jeex at mii nga xam ne moom ngay génn mboolem bàkkaar yi nga ci defoon yàlla dana la ko baal at mi nga dëgmal mboolem bàkkaar yi nga defoon yàlla dana la ko baal borom xam-xam yi lii passé moom amul problème mais li ci kanam bokk na lañ koy lañ koy firee mooy imma yàlla dana la aar ba doo dugg ci bàkkaar yu mag yi ca foo bàyyee bakkaar yu mag yi yàlla baal la bakkaar yu ndaw yi in tajtaniboo kabaa'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum kon yàlla dana la aar ba doo def bakkaar bu mag sa bakkaar yu ndaw mu effacé wala même bu dee ne tarxis nga ba def bakkaar it fokk yàlla dana la dëppale ngir woor gi nga wooroon yow mu arafa yàlla dana la dëppale nga tuub bakkaar boobu ba yàlla baal la ko kon loolu mbokk dafa nekk ngëneel goo xam ne nii ngëneel gu rëy la mu bokk it mbokk li nga xam ne mooy fan yi ñu dund ak la nga xamee ni ni mooy yow mu arafa ngëneel bi nekk ci baril zikrullah ca loolu bokk na ca la gën a màgg la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dañ digle ndax bokk na ca la ci yàlla digle borom bi mu ne fazkurullaha fi ayamin maalumat tudd leen yàlla ci bis yoo xam ne dañ koo xam ca loolu mooy fukki fan yi loolu kon depuis ah mu commencé ba ba bisu àjjuma bi jii di ñëw foo waay mën a nekk ngallaawaay war na baril zikrullah la ci gën a màgg mooy baril di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu amma buñ demee ba bisu arafat loole da ngay gis na yoonal nañu ci mbooloo jàkka ji ànd yëkkati seen baat duñ ko yëkkati ci benn kàddu waaye ku nekk day wax ci waxinam ñu yëkkati loolu ba nit ñi nekk ci biti jàkka ja xam ne ñu ngay kabbar loolu da ngay gis ne sunnal nañ ko ci gannaaw bi su arafa ba ba ñetti fan ya nga xam ne ñoo topp ca tabaski ga loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax na doon góor na doon jigéen ñu bañ a sàggani la nga xam ne mooy askar yooyee ay yéen mbokk jullit tey jii day yàlla nattoo nañu aj màkka la ma leen ca wax julit ñi aju ji wu ñu màkka waaye suñu borom yàlla wërsëgal nañu it loo xam ne gëj naañ ko nemmeeku lool mooy ajjuma ji di ñëw mboolem kaw suuf dëppoo ni mooy bisub tabaski ñépp nar koo ànd muy it loolee mbokk gëj naa am lool yal na yàlla saxal ko ca nangul ñu ko kon ajjuma ji di ñëw mooy tabaski mbokk tabaski la ko gën a màggal mooy julli gën ciy julli ca loolu suñu borom yàlla moo ñu ko sant fa salli li rabbika wan xar muy bis bi gën a màgg ci feet yi moo gën a màgg fuuf bisub korité loolu moo tax ñu bàyyi ci xel bu baax dañu fàttali ne jàkka ji insha allah bu 9h jotee ci bisu àjjuma daañ ñëw ah julli fii la nga xam ne mooy jullik it gannaaw ba it képp ku yàlla man loo nga la waay kër gu ne war nañoo def effort ba rey fa benn xar war nañoo def effort ba rey fa benn xar suñu sakkoo ay tuyaaba ba rey fa juróom ak juróom benn loolu seen mbir la waaye la nga xam ne mooy shaira ci lislaam mooy kër gu la ñu rey fa benn xar dana yóbbaale waa kër gi yëpp même bu ñu doon téeméera même bu doon bokkuñu dara mais maadaama ñoo bokk génn kër gi dana leen yóbbaale aada na la boo xam ne Sénégal aada woowuñ ko waaye bu doon te ne juróom-ñaari borom kër mën nañoo dem jënd benn nag rey ko ñoom ñëpp am nañ tabaski gëléem naka noonu waa Ndakaaru it xamuñu ko waaye bëy it mën naa tab mën naa tabaski loolee ñu bàyyi ci xel bu baax xar moomee la gën a mat mu am at doonte ne am na borom xam-xam yoo xam ne nee nañ bu rombee juróom-benn weer rek baax na waaye bu amoon at day lay gën a mat moytul ma ñeenti bul jënd xar mu la feñ bul jënd xar mu pat bul jënd xar mu feebar bul jënd xar moo xam ne loof na ba amatul benn graisse ak it loo xam ne méngoo naag moom wala lu ko raw masalan bu mën a laa xar mu pat xar mu gumba moom taxul may wax ak yu demee noonu loolu it mbokk jullit ñu xam ne tabaski googee kenn waru koo rey lu dul dangaa julli ji ba pare su dee yàlla nattoo na la amoo fu jullee bàyyil ba xam ne ña la gën a jege day julli nañu waxtu julli wa paase na nga doog a rey sa tabaski yonent bi alayhi salaam daana wax man zabaha qabla salaa fa innama zabaha li nafsi wa man zabaha ba'da salaa faqad tamma nusukuhu wa asaaba sunnatal muslimin ki rey avant ñuy julli kooku day yàpp kese la am waaye ki nga xam ne ba ñu jullee ba pare la rey kooku day am na tabaski def na sunna jullit ñi boo delloo nag ci téere yi ñuy jàng fii rawatina risaala ñoom dañu naan la da ngay xaar ba sa imaam rendi ngay doog a rendi waaye nag ngalawaay mbokk jullit nañu xam ne bokk na la gën a la gën a wér mooy bu ñu jullee ba pare ku ne am na droit rendi imaam sax mën na bañ a am xar bu mu rendi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax kon lii mbokk moom mooy la nga xamee ne nii mooy bis bu màgg bee di ñu xaar. di bisu aljuma bii di ñëw ñu war a góorgóorlu ci suñu kemtalal kattan fexe ba lépp loo xamee ni nii dañ koy man ci lu baax ñu def ko waaye itamit jéem a góorgóorlu ci téye suñu bopp ci lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ci ci ay wax ak i jëf xamal ne fuñ la waxee ne place sangam def lu baax yàlla da koy ful waxtu sangam def fa lu baax yàlla da koy ful naka noonu it def fa lu bon yàlla da koy ful yéen ñëpp xam ngeen ne bàyyi seen kër julli si ci jàkka ji loolu ngëneelam moo ëpp doole waaye it ki doon njaaloo ñëw ci jàkka ji di njaaloo yéen ñëpp yéen a xam ne musibaam moo ëpp noonu it lay amee ca la nga xame ñi ni mooy waxtu yooyee ñu bàyyi ci xel bu baax ci góorgóorlu jéem a téye suñu bopp jéem a waajal bi su it boobee ci lépp lu ñu mën ci lu baax na ngeen ko xamee it ngeen daan ko def sangu ba la ngay ñëw bañ a lekk dara la ngay jëkk a lekk bokk ci la nga xam ne mooy sa xar lii bokkoon na lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan jàngale ci bisu it gannaaw ba ñu fóot xol yi ku nekk daa di jéggalu sa moroom balu sa moroom lii day tax suñu borom yàlla boole ñu ci njéggalam ak yërmandeem yal na yàlla wërsëgal ñu mboole mi yiw bu muy wàcce ci fukki fan yi yal na yàlla wërsëgal ñu mboole mi yiw bu muy wàcce ci yow mu arafa yal na yàlla yombalal ñu iid gii di ñëw yal na yàlla wërsëgal ñu dëppale ko ak ngërëmam mu nangul ñu àdduna nangul ñu alaxira allahuma rabbana atina fi atina fi dunia xasana maa ngi fàtte it ne am na ñooñu di jël koor yi nga xam ne xamuñu seen borom di leen suul armeelu yoof dimanche bii di ñëw am na ñu ci war a jële hôpital Dantec yal na yàlla jéggaleen yàlla yërëm leen allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين